ci wolof li ma mën a tënk mooy tey suñu mouvement dafa ñëwoon pour installer le mouvement ou la cellule des femmes du mouvement pour un Sénégal prospère di mouvement boo xam ni day ko samp ci cees pour que boole waa Thiès yëpp ñi nga xam ni xëy na politique dañoo jàpp ni politique nit ñu setul rek ñoo koy def wala politique ñi nga xam ne dañoo def politique seen métier rek ñoo koy def ñu dagaloo ñun ñëpp nag autour des hommes et des femmes di woo ñëpp ñi nga xam ne bi ñu ko wootee ñëpp ñoo fekk ñu si. ñu jël moyens yi ñu am ànd ak suñuy militants pour àndandoo def mouvement boo xam ne egsi na tey ci samp mouvement boo xam ne ñu ngi ko tuddee cellule des femmes présidente bi di Soxna Mbathio Diop nga xam ni ay at mi ngi nii di ko liggéey tey lu mat cent vingt cinq groupement de femmes. ñoo présente fii mouvement bu nekk am na au moins cent personnes yoo xam ne ñu ngi ci gannaaw moom des militants yoo xam ne dëgër nañu gëm nañ li ñuy def ñu àndandoo ku liggéeyal dëkk bi liggéeyal suñu bopp liggéeyal yëpp àndati nag ak président bi nga xam ne tey moom la fi Sénégal def loolu moo ñu boole woon tey ñu ne nañ ko àndandoo def mouvement bi nag bi ñu ko sampee ba léegi def na ay activités yu bëree bëri bañ ko sampee am ñaari weer dañoo dem ci élection locale yi. ñu am dans le cadre d'une coalition boo xam ne defoon nañ ko boo xam ne mën nañu ñun ñoo def lépp am nañ ci benn conseil municipal am ci conseil de départemental ñu continuer di liggéey loolu bi référendum bi ñëwee ñu liir ko gis ni que référendum bi li ci nekk yëpp ay ponk la yoo xam ne Sénégal moo ci am njëriñ ñu ànd ceeg président defal ko campagne ci suñuy propre moyen ba quartier bi ñu nekk yëpp bureau de bureau yooyu yëpp ñu gagné ko grace à notre mouvement yi nga xam ne tey ñu ngi koy def bu ñu defee loolu ñu ne aussi nag léegi jigéen ñi ñu àndal ñoo ànd ak ñoom noonu rek ñu jël ci li ñu am ci suñu liggéey ci suñuy koom-koom boole kook suñu financier yi nga xam ñoom ñooñu ci mën a jàppale banque yi nga xam tey wóolu nañ ñu ma ànd ak ñoom wuti ci xaalis boo xam ne toll na ci juróom fukki million ànd ceeg ñoom nag pour liggéey di ko jox femme yi ndax ñu liggéey indiwaat ko ñu mën a dimbale ñeneen boobu ba léegi nag jàmm ak salaam femme yu am jub lañu femmes yu baax lañ parce que femmes yi ku leen dimbale xam ne ñi jàmbaar lañ moo tax ma jóg ànd ak ñoom ci liggéey boobu ndimbal bi nag fàttewuñu xale yi fàttewuñu mag ñi ñu ngi leen di waajal seeni i programme loolu xam naa ne dañ ci gën a waxtaan dans une commission scientifique et technique ba ñu xool naka dañuy def mais ñu ngi lancé président de la appel ak ñëpp ñi nga xam ne ay bonne volonté nañ ñëw fekk su nag ci liggéey boobu parce que loolu nag moo mën a def l' émergence tax sama part ko prospérité ndax baax na gaa mais dañu bëgg nag nit ñi prospère ci boobu nañ ko indi ndimbal ba ñu egsi ci seen biir mouvement bi it bi mu liggéeyee def na leneen mooy li gën a am solo ci réew mooy njàng ak njàngale ñu ngi ciy wax ku ñu xam xam ne ñun suñu métier loolu la mais ñu jël nag doomu jigéen ñi nga xam te ñoo fi nekkoon di daan doole amuñu lu ñu fayee ay cours particulier amuñu lu ñu demee ci école yu mag yi ñu jël suñu alal ak suñu mën-mën ak suñu xam-xam ànd ak ñoom encadré seen doom chaque année dinañ jël valeur de trois à quatre à cinq millions jox ko ay professeurs yu xarañ yoo xam ñoo leen tànn bala ñu dugg classe seen CV nañ may jox bañ koy def ba léegi taux de réussite bi bonoon na mais gis nañu que taux de réussite bi léegi mi ngi yéeg nekkoon na mooy de cinquante pour cent am na école yoo xam ne ren am nañ ci plus de quatre-vingts pour cent te loolu nag du koy sant enseignants yi nga xam ne ñoo nangu ànd ak ñun ci liggéey boobu ci li ñu ci laaj taxul la bari kon daal ñu ngi liggéey bi di ko yaatal bi nag. d'abord Thiès la commencé parce que nag ku nekk bala ngay def dara war ngaa dellu fa nga fekk baax nga nga tàmbale fa boobu ñëpp say mbokk dañaa nit nit baax na nañu laaj ay mbokkam moo tax ñu dellu cees ndax suñuy maam fi lañ dëkk suñuy yaay fi lañ dëkk suñuy xarit fi lañ dëkk ñu samp fi mouvement bi mais du mouvement boo xam ne nag Thiès rek moom nañ ko yemale dañoo jàpp ni Thiès la wala dàmbale fi mu nekk nag bi ñu doxee ba xam ni Thiès moom liñ naan li wolof Njaay naan mokk na ñu yaat ko ci département bi Ndufak Ngumsaan Peykoub Silma village yi ko wër yëpp fi mu nekk nii ñoom ñëpp seen i chef de village seeni i conseiller ñi ngi ñëw di ñu fekk si ñu bokkoon ci yenn parti réew meeg ñëpp tey dañu am assemblée générale boo xam ne danaa leen tegal ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi liggéey ci suuf liggéeyu mbappatu mm, suuf ni ko kii di waxee ba nga xam ne bis bi ñu ko wanee dañ xam li nga xam ne liggéey nañ ko ci Sénégal ah léegi nag ñu ngi liggéey di ko yaatal ci ci Ndakaaru Njaay ci dëkk yu ndaw yi Dakar moom xam naa ne que bis bu ñu wootee ñëpp dañ xam ne que intellectuel yi nga xam dañoo toogoon bëgg ñu def politique maa leen di woo à travers sama communication bi ñu xam ni politique war ñu koo bàyyee rek ak les politiciens politiciennes. dañoo war a jóg nag ñun ñëpp takk suñu ndigg du ne dañuy ànd ak président rek dañuy bàyyi président lu mu def rek wala lu mu ñu wax rek ñun ñu def ko du loolu dañoo gis ci moom ne président la boo xam ne élite nañ ko ñun ñëpp dañoo war a nekk ci gànnaaw di ko jàppale ndax sas bi ñu ko jox mun ko eggale. ñu gisee loo xam ni doxalu ko loo xam ni gëm nañ ñu war na ko gën a mën a def bu baax ñu wax ko suñu xalaat lool moo tax ñu nañu ànd ak moom di ko jàppale ci liggéey boobu. bu rëy kontaan ci lool aussi mu nekk nag yan bu diis ndax kóolute dafa am solo ci kaw kóolute boobu mu ma wóol moo tax man ak centaine de groupement yi mbootaay yi ma àndal. conjuguer suñu effort def benn bureau parce que bureau bii ñu élire tey defaroon nañ ko bu yàgg ci kaw loolu ci la doon liggéey liñ ñu ci doon liggéey nag mooy fexe lu jëmale part bi kanam parce que yaa ma doy dafa gis li jëmale parti bi kanam mooy danoo dajale jigéen ñi nit ñi taxawal benn bureau bi ñu taxawalee bureau bi ba pare nag ñun ci suñu bopp ak suñuy maigre moyen dañuy wax ni olof dafa wax ni ndimbal daf siy fekk loxol borom ñuy cotiser ñun chaque mois mille cent franc mille cent franc yooyu dañuy jël mille franc yi jox ko ki nga xam ni mooy organiser léegi cent franc yi dañ koy def ci benn caisse parce que bànneex ak naqar moo ànd ñu conjuguer suñuy efort def de telle sorte ñu nekk benn di xàccandoo di dóorandoo mais loolu ñuy def chaque mois tous les dimanches de chaque mois lañu koy def ci benn de quartier en quartier dañuy sillonné Thiès yëpp ci kaw loolu dañuy tirage au sort responsable bu gañe ñu dem sa koñ mais dañ lay obligé que ni yow sa koñ suñu fay ñëw ci mbedd ngay organiser parce que liñ ci jublu pour ko xam suñu leader lu ñu ci jublu pour ñay dem ak ñay dox liñ ci jublu pour ñay dégg ñu gën a xam suñu leader mooy kan sunu leader li muy liggéey sunu liggéey sunu leader li muy def ak fa mu ñu jëlee ñun en tant que femme ak fi mu ñu jëmee loolu lépp dañ koy waxtaanee ci sunu biir mouvement tout les mois dañuy def sortie premier dimanche chaque mois dañuy def sortie léegi ci kaw loolu aussi dañuy ànd ci naqar bi ànd ci bànneex dañoo former constituer daal un groupe homogène loolu moom ñu ngi ci sa ñu ngi def toujours pour élargir le parti présidente ana yan moo leen pousse tey ngeen ànd ak mbir mi boobu di liggéey ak eh, ay jafe-jafe ci mhm. tey ngeen ànd ak moom ba li ngeen doon def. Mhm. tey egg fii tey ñu jël la jiital. Mamadou Gningue ba nuy ànd ak moom politique lu jafe ba nuy ànd ak moom mu dinu dimbali di nu jàppale si suñuy mbootaay dinu jox ay financement li ñuy wax daanu dañu daju suuf moo ci nekk sa lu yaatu dina am noo xam ne di nga ko liggéeyee mais daf ñu daan jox sa ay financement sans intérêt ñuy caution ci mbootaay yi di ñu jàppale si suñu daayira yi di ñu jàppale si suñu laylatul xadar yi partout jigéen ñi nekk moom li ñu la di def social ci ordonnance yi wax naa ko sànq sa loola ba mu koy def quatre ans après day soog a sóobu politique ñun ñun dañ daan def délégation parce que booba dañoo amoon benn mbootaay bu ñuy wax kaay baax Ndeye Fatou Kane jiite woon ko muy apporter soutien di indi soutien ci ñun ba ñun suñu bopp ñu jaaxle ci ni kii est-ce que du dafa bëgg politique à chaque fois nag suñu demee këram interpellé ko mu ne noonu dama leen di jàppale yàlla tax mais du question ay politique loolu moo tax ba mu jógee yàlla di naan sa destin fa mu koy jaarale yàlla nag def premier jour bi nga xamee ni war naa waxtaane politique man mi maa fi dikka teew ma encouragé ko ci kontaan ci lool parce que dama gis ci moom benn dëggu gis ci moom benn yaatu gis ci moom nit koo xam ne du nëbb gis ci moom kuy dimbali ku mu xam ak ku mu xam lu jafe ci kaw loolu lañu àndeek moom ci politique se liy firndeel li may la wax ci deux mois neuf jours des élections municipales ci la ñu sóoboo si la suñu parti judd suñu mouvement ñu soobu ci élection alliance pour Sénégal prospère ñu sóobu ci benn alliance léegi ci kaw soobu boobu bi ñu demee ñu génn benn conseil mais conseiller boobu yaakaar naa ni soo defee palmarès bi delluwaat ci ginnaaw un deux mois neuf jours parti buy soog a judd mouvement buy soog a xam naa su dee lii dafa toll ci jéem a toog mais toogaayam sax dëgg mu dem élection génn conseil chose rare mosta am sax loolu laay kon loolu mooy firndeel li ma leen wax ci moom mooy firndeel li ma leen wax ci jàppale gi mu jàppale ak social gi mu def moom naka jekk mouvement bi sax bañ na ko ba mouvement de développement lay wax moom li ko gënal ak ay ambition mooy jigéen ñi jëm kanam te ñun dara ñun jigéen kees gi ànd ak moom ci mouvement alliance pour un Sénégal prospère namatuñ dara wax dëgg yàlla ndaxte jëlale naa dimbali gi mu ñuy dimbali mais mu ngi dimbali suñu njaboot te defe naa éducation li mu ciy def gisuma kenn ko def na Pape Diakhaté ci mouvement di ko def ci wàllu éducation di ay jël ay millions di ko ci def pour renforcer nos enfants kon ñun duñu man lu may ànd ak moom loole jëlale nañ ko ma ngi ci jàpp yi ma ngi ci jumaa yi ma ngi pàkk ma ngi jàppale ñëpp daal wax dëgg yàlla ba fi nekk nan ñun daal mouvement bi ñun jigéen ñi namu dara te ñoo ngi def tout nag pour jaatal ko. présidente li ñu wax naan ba ne ëpp dafa fekk sorkat jatu moo ci nekk. man jàpp naa ni damay continuer liggéey bi gën ko renforcer mais yaakaar naa ni le ay est haïssable mais je sur la bonne voie. li ma xalaat waaw li ma xalaat je sur la bonne voie dañuy continuer nag surtout nag dans l'unité la cohésion surtout ça loolu daal laa xam ne moom dinañu continuer liggéey boobu sa ba léegi ñun wax naa délégation yi sa ñun xaaruñu ko ci dara wax dëgg yàlla parce que dafa ñoo defale defal ba telle sorte que ñun ñoo ko war a delloo njukkal comme ñoo ko war a delloo njukkal nag ñun war a waratuñu ko xaar ci dala dara ñun li war a def takku ba dëgër ñun faaw mouvement bi dugg ci région bi dugg ci village environnant yi sañu liggéey parce que déjà délégation Lelo ngi fi woon délégation Touba Peykour ngi fi woon délégation Ngum Saan ngi fi woon délégation Peykour Séréer ngi fi woon délégation Sirma ngi même délégation Takir Mbamba mu ngi fi woon waaw ak d'autres délégations waaw Ngolaar délégation Ngolaar ñoom itam ñu ngi woon. kon waaw.